asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare nekkati ci wàccaayu màggal gi mu des lu néew a néew a néew ñu tasee teeg lenn ci murit yi sëriñ tubaa yi yor melokaan wu rafet lool te murita lool barkib sëriñ tubaa di waajal màggal gi ñëw fi ngir jëmmi sëriñ tubaa ak li nga xam ne mooy ndigalul sëriñ bi seex bi ñoo ngi lay siyaare tur bi ndaka la ak fan ngeen bàyyi ko. waaw ñu man maa ngi tudd Ahmadou Bamba Sarr ñun ñun tubaa lañ dëkk waaye Dakar lañ nekk ñu ngi fii tamit ci Daara Hizbut Tarqiyyah di ci biir liggéey bi nga xam ne mooy liggéey sëñ Touba bi nga xam ne loolu rek lañ nekk waaw. waaw sëñ Ahmadou mu mel ni màggal gi des na tuuti gaa yëpp xeer ngir ñëw jooxe ndigalul sëriñ Touba loola màggal gi tamit fi mu ne na sëriñ bi wootee mu di yi tamit xam gun xam ne sëriñ bi ndigal loolee buñ ko jëfee moo gën ci ñun fu nekk waay fëxe fa bitim réew ak biir réew meeg fu nekk ci kaw suuf ñëw fi ngir ndigalul sëriñ Tuubaa te muy faju aayo ci ñun nag yitte jooji ak ngërëmul lool yi ak ndigal lool yi sëriñ bi ci lañ lay waaw xam nga dafa magal Tuubaa moom day loo xam ne sëñu mag bi nga xam ne mooy sëñu mag bi nga xam ne moom moo ko digle woote ko wax ne day képp koo xam ne sama mbég sa mbég la sabu bu sama bisu yi fekkatee ci kaw suuf muy magal gi nañ mi sant yàlla sa borom ci li ma ci defal kon nag muy ne bi batu magal ku ne xam ne ci làmb ñoom mu tedd ba lañ ko lañ ko njëkk a déggee ndax ba muy ba muy njëkk a digle magal gi dafa am tabaski boo xam ne dafa jot bëccëg tabaski boobu ca njaaram la woon sëñ bi tok, ñu toog ba mag ñi ñëw di xaar pour sëñ bi génn julli sëñ bi génnut génnut ba am ñoo xam ne ñoo yàkkamtoo daal dem am ñoo xam ne dañoo ba disbar sëñ bi ñëwut ba nonu ba nonu ba nonu sëñ bi bis boobu bañ demee nag ba loolu weesu ba ba ba ba ba tamxarit bi weesu ba ba mat ba weeru sawar gi teru mu moo mag ñi bañ ñëw mu leen day weeru ñu nekk ni day bis bu itam gane si bu amee fukk fan ak juróom-ñett day bëgg naa ngeen def ko ni ab tabaski xam nga waxee loolu nag am ci beneen bis am mag mu ñëw na ko ñun day makka tabaski waat bi nga wax de buy kee mu leen su nga wax su nga tuddee tabaski waat de day min deniru bi daa kon nañ ko woowee màggal kon baatu màggal ci maanaam si mag bi nañ ko ñu ko dëggee ndax dañ doxale wo leen de moo tabaski de waaye moo tabaski ci yéen ba noppi nag digalee magal gi daal ne maa ngi koy digalee te doo xamal ne saa bu dikkalee ci kaw ma ci sant yàlla suñu borom ci li ma jafal kon loolu nag wax dëgg yàlla day ndigal sëñ yoo xam ne ñun ñi nga xam ne moom lañu yaakaar te mu duñu bëggati lenn duñu xamante lenn lu rek jublu ci bis bi def ci nag suñu kéem kattan ak suñu lépp nag alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati Serigne Touba Cheikh Salim Mbacké jërëjëfati Serigne Touba Cheikh Salim Mbacké xéewal gi nag comme nu nga ko gisee rek daanaka noonu lañ ko gisee ñun liggéeyu Serigne bi ute luñu ko àpp ndax euh, suñu yoon newul ci ndox mu bari wala si euh, taw beeg tàngaay wi ñun Serigne Bamba lu mu bëgg rek lañ koy servir muy sant ko yàlla sunu borom loolu rek moo nu tax ñëw ci màggal gi di wax rek nag lu ko dalee ci ginaar ba ci gëlëm ñun lépp luñ ci mën rek dañ koy def maam Xaadim Mm. jërëjëf sëñ Massamba ñu gisaat yéen xër gi ngeen am ci sant ci sëriñ bi mm. dafa mel xaaralu leen ko ba màggal jot ngeen door a ñëw yéen seenug mm. ak seenug dem lépp ci sant la aju te loolu mooy dëgg dëgg jaamu yàlla nag ndax yàlla daa wax ci alxuraan ne lu néew ci jaam ñi ñoo may sant waaye yéen ngeen fas yéene di yaatal cant gi muy law rek nag dëgg la dañuy dem ci waxu ji sama yaakaar ja sa yaakaar ji doon na wax naan dara gënt a kawe sant ak ñaan nañuy sant yàlla di ñaan yàlla ci xéewalam yi kon nag ñun liggéeyu Serigne bi gi chaque jour la maanaam màggal gi bu jeexee mardi mardi boobu la ñuy commencé waat jëm 2024 pour waajalaat màggal gi amaluñu ko bés amaluñu ko waxtu ñun dañuy sant rek ba xëy faatu loolu rek mooy suñu jubluwaay te sëñ Bamba Xaadimal Moustapha dafa sonnoon daanaka euh, boo xoolee juróom-ñaar fukki at yoo xamante ni 60 ans yi rek daanaka la am euh, benn waxtu woo xamante ni te ci ay ñaar fukki at la sax laa mën a wax ndax lepp tukki bi yow yaama gëna xam mm. sonnon na ci lool ndax juroom ñetti at mu nam doom ji Serigne Modou mustapha mën ta fexé ba tek ko bëtt mm. juroom ñetti at mu nam Serigne Modou Moustapha ah, mënuñ ko fexé Serigne fallu mën ta fexé ba tek ko bëtt juroom ñetti at mu bay fi Serigne basirou ci ñetti wër mm. mën ta fexé ba tek ko bëtt ak rakam ji Thierno Ibra Faté ñu ca téggu kon nak mom noppalu wutoon kon nak ñun tanté duñu noppalu Serigne bambar lañuy sant rek ba xey mu melni ni yi ñepp am ak ñewantalu ci Serigne bi dajoon duñ daj xaj bi waye yalla fay nako ko gi bu sé mm-hmm. murid yi gis nga des na ñetti fan bis ni tey jàpp ñaar waaye fu nekk murid yi ñu ngi fay jugee mm-hmm. di ñëw fees dell ci dëkk bi amul genn coono gi nu yëg na daj nañ ko ndax la Sëñ Tuubaa dajoon waaye itam murid yi uh-huh. bëgg gin bëgg sëriñ bi mm-hmm. tax na xoolal dëkk dëkk bi fees na xaat la Sëñ Tuubaa waxoon ne sama tey juna day gàccaal sama ëllëg nag bisub tey feeñaat na ci xoolal boo gessoo sa ginnaaw boo gessoo sa kanam fépp rek yaa ngi gis mbooloo mi ñëw xër ci bëgg sëriñ bi kon nag bisu sëriñ bi amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am sëñ samba mhm. ñoo ngi fii ci jumaa ji mhm. ànd koog mbooloo mi mhm. ñu bari lool xër lool ci sëriñ bi xéewali di gën a yaatu waaye yow it ndaysaan buñ ko buñ la tuddee rek tudd xel ko ndaysaan dëgg la yéen a jëpp di xel ko loolu ab cër la wallaay barki Serigne Saliou Mbacke maam xaarim ab cër la ndax Serigne Saliou Mbacke mu nga xam ne daanaka nu ma koy waxee mënul gan tele dëkkam du xas nit ci waa këram yow xam ga sëriñ Saliou Mbacke foo jaar moom daanaka ñu fa bëri duñ fa jaar ak moom wala yow lu ngi ci mëna wax kenen mënu ko wax waye nak da am lo denc euh, xel comme di 45000 hectares euh, digënté dara ju nek mëna ak euh, morom ka juroom benn kilomètre waye mu bayyi fu fukki junniy dong ak ñatt yo xam seen ak seen nan ak seen wërgu yam lepp moko yoré ta xel comme ñun mom rek lañ am tuol Serigne Serigne Saliou daan wax naan xel comme tooli Serigne Touba la man Serigne Saliou Mbacke jëwriñ la ci xel comme na ko fa jaar wala nga jaar ci Serigne te Serigne mam Khadim amul benn bes budul magal moom benn bés amu ko lu dul màggal gi daana wax naan man day màggal gi bu ñëwee jaay kër du sama yitte waaye su màggal gi jotee te awma lu ma ci def jaral na ma jaay sama kër def ko ci te ñun amuñu lu dul màggal ak Serigne Touba gi moo gën ci ñun tey gën ci ñun ëllëg mhm. maam Xaadim ku fi bàyyi Serigne Touba foo jëm mhm. ku fi bàyyi Serigne Saliou foo jëm ku fi bàyyi màggal gi foo jëm mhm. ndax xam nga ne mbooloo mi nii nii ñu mel ni te suba du màggal gi màggal gi lëndi la incha allah rabbi te daanaka Touba fees na dell maam Xaadim. ni ma la déggee mooy màggal gi képp ku ko fonk te jox ko yitte. Mhm. ay xéewal yi àdduna ak alaxira dina ñëw ci yow dëgg la maam te sëriñ tubaa digle na ko te sëriñ saaliw ak mbooleem njabootu sëñ tubaa gi ku xool sëñ fàllu mi ko woote woon fii mhm. xool sëñ abdoulaat na mu ko daan soññee xool sëriñ abdou xaadir mi fi jaar bu na yàggut mhm. xool jëmmi sëriñ saaliw ji fa ko tegoon xam nañ ne màggal gi bénéfice u kese la màggal gi ku ci feeñ dootoo nëbb mukk waaye nag ndokk ba murid yi xamee loolu murid yi maase nañ xam ne màggal gi mooy seen fajuk aajo mhm. di la sant di la gërëm ah, mbokk yi ñoo ngi sant sëñ Massamba Xelkom mm-hmm. di bég bu baax ci taxaw gi ñu taxaw ak moom di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñi nga xam ne ñooy màggal gi TV di commission culture uh-huh. commun communication lépp lu jëm ci waa màggalu Touba uh-huh. ay jàmbaar lan ba màggal gi dooree ba léegi ñi ngi ànd ak coono yu métti jëmee ko ci liggéey bi kilifa yi ko àndal itam wax dëgg yàlla taayaluñ ben yoon zaman bu nek rek ñoo ngi di xol luy gëna ñongal bi di xol nu communication bi def ba bok ci communication yi raw ci aduna bi te ñing ci ñing ci nak wax kol yalla ku xol écran géant yi xol panneau yi xol itam liggéey bu rafet bi ci wa Magal gi TV taxaw and ko jëwrin Ahmadou gey ndjay yalla ko yalla taxaw ak mbollem équipe technique bi nek ci ginaaw ñu sonn lool te duñ tayel nelaw sax duñ ci jaar way seigne touba jar lu upp lool seigne touba jar lu upp baña nelaw Maka